ñun dañoo gëm ni Sénégal fu ñu toll fu ñu bëgg a dem ak lu ñu bëgg a am mënuñ ko am fekk ku nekk suñu naan mën a mën a fu ñu bëgg a egg pour nga am ko foog ne ñaan ñun la ku nekk dugal ci loxoom te loolu coopérative bi loolu lay firndeel waaye daa am tamit loo xam ne dañ ko seetlu woon mu jëm ci mbay mi nga xam ne fa la ñu nekk c'est vrai que bu ñu ne coopérative yemul ci mbay mi rek lu koy firndeel wax nañu fii nii euh, digital Sénégal digital nga xam ne coopérative la bu nekk sur la numé numérique waaye dañoo jàpp ne mbay mi fu ñu fa bëgg a fu ñu bëgg a dem jéego yu ñu ci bëgg a am mënuñ ko am bu ñu continuer di doxalee ni ñu daan doxalee boobu ba léegi foog am lu ñu ci soppi waaye tamit booy soppi tamit foog nga xool sa ginnaaw lu fi baaxoon nga xool sa ginnaaw li nga xam ne nu am na lu ci xam ne mun nañ ko jubbanti nga jàngat ci loolu yëpp te loolu génn na ci lu professeur si c'est doon wax sànq mooy être dans une société apprenante nekk ci société apprenante boobu nag approche boobu ñu nekk moo tax mu ne nañu xool Sénégal bu ñu xoolee mbay mi temps yépp amaana ñenn si dégg nañ ko coowu intrant yi boo déggee coowu intrant lu ko waral lenn rek la mooy ñenn ñi mel ni man ak samay morom ñooy àcc moo lépp bàyyi baykat yi ci bor bi ñenn ñi mel ni man ak samay morom ñooy aakimoo matériel bi bàyyi baykat yi ci bor bi loolu nag buñ ko buggee dindi lenn rek la ndaxte damay faral di wax dama ne tant fii ñu ngi continuer joxe intrant yeeg matériel yi ñu koy joxee baykat beeg sàmmkat yi du si jot ndaxte li ma bëgg a jubal jubal li ma bëgg a baax baax am na koo xam ne bu ñëwee sama bureau toog ak man waxtaan ak man lu mu tuuti tuuti nit laa xol laa yor dinaa am yërmande wala kersa bu ma am ci moom loolu lu muy tekki mun naa am ma jox ko ko yelloowul ngir dindi lool nag foog ñu dem ci dans une approche collective approche collective bi nag fu ñu ko mun a amee mooy coopérative yi coopérative yi luñ ci xam seetlu nañu ren dañuy jël di intrant yi di ko distribuer waaye bu ñu ñëwee dañ ne dañ ciy jël lu bëri ñu teg ko ci loxo coopérative yi ñoom ñu séddale ko seen membre yi loolu te pourtant coopérative yi lu ci ëpp solo mooy lu ñuy wax ci transparence bu ñuy woote coopérative bu ñu ci woo yëpp ñu joxe jot yëpp ku kuñ ci woo ne ko kaay nga déposé woon demande ne la ah yow kat laaj nga dañ war a jox waaye dañ ci bëggoon am lu ñu sukkandiku coopérative bu ci ne daf ñuy indal liste membre am yëpp indal numéro carte d'entrée membre am yëpp indal ñu numéro téléphone membre am yëpp ba pare wax ñu membre am buñ ci ne fan lay bayee ak ñaati hectare lay bay bu fekkee da ngaa bëgg rek lu set lu jub lan moo gën a lool lan moo ko gën a set ak lan ko gën a jub loolu gis moo tax avec le ministre ñu nekk dans une approche boo xam ne fu ñu bugg a dem mooy que lépp luy état di def léegi jëm ko jëmale ko ci mbay meeg càmm ji fu ñu ko bugg a jaawale jaarale mooy ñu jaarale ko ci coopérative yi tekkiwul ne ku demal boppam dañ lay bàyyi waaye am nañ sañ-sañ ne naan ndimbal ji état di def nga xam ne ñëpp a ko bokk fu ñu dajaloo di fa gis lu ëpp ci sénégalais yi ñun foofu lañ koy jaarale te loolu gis nañ ci coopérative yi la nekk am na nag dañuy door waaye sànq professeur Abdallah Cissé wax na ko ñu ngi sant yàlla bu ñu ñëwee fekk fii lu fi mel ni pla euh, plateforme IRESCOP ñu ngi sant yàlla bu ñu ñëwee fekk fii lu fi mel ni projet PACAO ñu ngi sant yàlla bu fi ñëwee ñu fekk fii am na co organisation yu bëri ñi nga xam ne dañuy wuyoo coopérative yu fi nekk plateforme yooyu yëpp nag luñ ci bëgg bu ci yàlla àndee incha allah ñu xool ñu ci nekk ci IRESCOP baax na ñu ci nekkul ci IRESCOP nan lañ leen di accompagner ba ñoom ñu mun leen intégrer set cette plate plateforme ba pare xool ci IRESCOP ci pakaaw lu ñu ci def nga xam ne lii jàpp nañ ne mot na ñor na ba pare yàq lekk la rek ñu yàq lekk li nga xam ne ni nag war nañ ko ci mën a dolli ngir mbir mi gën a méngoog ni ñu ko bëggee ñu dolli ko ci waaye fi may jeexalee rek mooy kàddu yi foofu lañ koy tëjee mooy di leen xamal ne rek ci li ñu nar a def ak li ñu bëgg a def ñaar mooñ ci solo lu ñuy nar a liggéey du suñu liggéey yéen a ko moom ñoo fi taxaw waaye yéen a ñu fi teg ñoo fi taxaw waaye yéenay suñu patron donc am ngeen sañ-sañ ci li ñuy nar a def lu ci méngoowul ak seeni gis-gis ak seen bëgg-bëgg ndaxte ñun dañoo am yéene ju rafet rek lu ci méngoowul ak seen bëgg-bëgg ak seen gis-gis comme que seen xaalis la ndaxte xaalisu état senegal la génne ñu lii ak lii ñëw leen jubbanti ko may nañ leen sañ-sañ boobu mayuñ leen ko sax waaye seen droit la am ngeen sañ-sañ ñëw si ñun ne leen jubbanti leen lii beneen bu ci teg foog naa ne yenn saa yi man ak ministre Mabouba souvent dañuy tooñ dañu ne dañuy naan yeneen ministre yu gën a ñàkk protocole wane naa ko léegi sax protocole bi mu waxee nga xam ne dañu war a wax bonjour monsieur tel bonjour madame tel bonjour monsieur tel ñu egg ci yëpp ñu jéggal ma ci waaye dama ko jéggi suñuy bureau ministère agriculture ñu ngi leen di yëgal ne yéen ñi fi nekk yéen ñi baykat ak sàmmkat ministère agriculture amul yenn protocole yu metti amul yenn yi am na ñu bëri yu may seen ci saal bi ñoo xam ne yor nañu sama sama numéro xam naa seen numéro bu ngeen ma soxlaa am jafe-jafe bu leen sonal et mun naa wax ne ni ma ci mel noonu la ministre Mabouba noonu la ci mel bu ngeen ñëwee newuñ ne yor nañu saafara jàngoro yëpp waaye am nañu xool ak nopp ku ñëw ñu déglu ak sa jàngoro waxtaan ak yow luñ ci mun a faj ñu faj ko luñ ci mënul faj ñu ànd wuti pexe niñ ko fajee loolu am nañu xol ak nopp pour def ko. ngeen tànn indi ko tey ci commune bu Notto Gouye Diama ñu ngi leen si sant waaye di leen ci gërëm mu doon loo xamante ne si bañ ko tàmm ci troisième édition bi nga xamante ne si jubluwaay bi du dara lu dul rek coopérative yi gën a dëgër. gën a ñoŋ gën a dem ci kanam loolu nag suñ ko defee ci biir commune bu Notto Gouye Diama ñu def lu du ci bég ak di kontaan waaye di wax ne mbooleem coopérative yi yàlla yàlla jëme leen kanam ginnaaw bi nga xamante ne si son excellence monsieur le président de la république ci jiitu bi mu jiitu ci biir Sénégal waaye taxaw gi mu taxaw ci di woote naan nañu jàpp ci coopérative yi pour que mu jëm kanam nañu ànd liggéey xam nees na bu baax ne ensemble coopérative yi jàppoo ndax fam nekk nii fi jamono toll benn nit mënalul dara boppam kon pour Sénégal dox dañuy bokk dañuy ànd dañuy liggéey liggéeyandoo ensemble ñu ngi leen di gërëm di leen dalal ci biir commune bu Notto Goudiama jërë ngeen jëf. Déterminant, ça a été souligné tout à l'heure en matière de sécurité alimentaire, en matière de souveraineté alimentaire. mais aussi en matière de croissance endogène, qui est une des grandes priorités euh, de ce gouvernement. C'est possible aussi à travers euh, deux éléments sur lesquels je voudrais élaborer un petit peu euh, dans, mon, dans mon discours. Euh, le premier élément, c'est la question de l'intégration africaine, puisque le projet PACAO est un projet régional et que cette intégration africaine à travers les coopératives est certainement un élément de promesse de croissance endogène au sein de la zone et bien évidemment au sein Sénégal. Et ça sera mon second point, puisque l'appui aux micro, petites et moyennes entreprises, qui représentent plus de 90% du tissu économique du Sénégal, est si euh, de l'emploi euh, doit être relevé. C'est certainement à travers euh, qui pourra en partie, en tout cas, euh, être relevé, notamment pour l'emploi des jeunes. L'intégration régionale, c'est quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur, puisque vous savez que l'Union européenne s'est construite à travers l'intégration régionale, s'est construite à travers euh, un marché intérieur important qui lui permet d'échanger entre ces pays et qui a été une source de croissance économique importante Euh, jusqu'à l'achèvement avec euh, la monnaie unique euh, en Sans rentrer dans l'histoire de l'Union européenne, je voudrais souligner que au Sénégal et en Afrique en général, l'Union européenne s'est engagée pour favoriser cette intégration africaine à travers cette offre qu'on appelle le Global Gateway. Alors le Global Gateway, c'est une façon d'améliorer les réseaux entre les différents pays euh, de l'Union africaine et entre les différents pays de la CDAO pour ce qui concerne la région dans laquelle nous sommes. Ça nous permet d'accompagner l'amélioration des réseaux transfrontaliers de part et d'autre des frontières, le transport routier notamment, on sait à quel point le transport routier c'est important pour euh, le développement et en particulier pour le développement agricole. J'étais moi-même avec euh, une dizaine d'ambassadeurs de l'Union européenne dans la région du Sud, il y a quelque temps, dans la région de Sédiou, dans la région de, Casamance, et on a pu voir les progrès de cette route Sénoba-Ziguinchor qui permettent de désenclaver la Casamance et qui sont aussi une promesse d'avancée en termes euh, de transport des matières premières agricoles. Puis au-delà du routier, évidemment, les interconnexions en général, on a parlé longuement ce matin du digital. Je pense qu'il faut souligner aussi que nous sommes très engagés à travers euh, cette euh, dynamique digitale. Tout cela pour faire quoi Pour renforcer les capacités commerciales, pour renforcer les capacités intra en Afrique, mais aussi entre l'Afrique et le reste du monde. Je crois que c'est un des objectifs sur lesquels je, souhaitais revenir. au Sénégal, évidemment, les deux éléments emblématiques de ces infrastructures c'est cette route Sénobas-Ziguinchor, c'est aussi au nord le pont de Rosso, euh, puisque euh, quand le fleuve, euh, ça sera facteur euh, d'intégration et de des investissements, du commerce et de la mobilité des personnes. C'est avec un grand plaisir que je viens à la célébration de la 30e de la Journée internationale des coopératives aujourd'hui à Cœur D'appui à la compétitivité en Afrique de l'Ouest, pour le Sénégal, PACAO Sénégal, financé par l'Union européenne à hauteur de 4,3 milliards de francs CFA et mise en œuvre par le Centre du commerce international depuis 2020, apporte une réponse concrète au développement de la compétitivité des produits agro-industriels horticoles sénégalais, en s'appuyant sur les sociétés coopératives pour valoriser les potentialités des chaînes de valeur mangue et oignon et ainsi satisfaire convenablement la demande intérieure et tirer pleinement profit de l'intégration du Sénégal dans l'économie mondiale et en particulier africaine. Mesdames et messieurs, le ministère de l'Industrie et du Commerce salue l'approche innovante et participative de ce programme, dont les premières actions ont porté sur la structuration des organisations de producteurs à la base en société coopérative. pour créer plus d'impact. Autrement dit, il s'est agi de positionner les entreprises coopératives comme un facteur clé de succès du renforcement de la compétitivité commerciale des filières mangue et oignon. Ces actions viennent compléter tous les efforts déployés par le gouvernement du Sénégal et plus particulièrement le ministère de l'Industrie et du Commerce pour soutenir la transformation structurelle des filières mangue et oignon, en mettant notamment l'accent sur la valorisation, la création d'emplois et d'activités génératrices de revenus en milieu rural, périurbain et urbain, en particulier pour les femmes et les jeunes, afin d'améliorer les conditions de vie des populations. C'est donc avec forte conviction que le thème de la 30e édition de la Journée internationale des coopératives, dénommée Les coopératives créent un avenir meilleur pour nous, nous parle. De par ses principes d'entraide, de démocratie, de solidarité, de participation économique, des membres, la coopérative représente une forme d'organisation qui pourrait contribuer activement à la formalisation des entreprises, d'une part, et d'autre part à l'accroissement de leurs capacités productives et commerciales, facilitées par la mutualisation de leurs ressources et la réalisation d'économies d'échelle. Cette vision nous conforte dans notre cheminement que nous poursuivons depuis bientôt 4 ans avec l'accompagnement du PACAO, comme je l'ai dit tout à l'heure, financé par l'Union européenne et exécuté par le Centre international du commerce. le secrétaire d'État, le BACAO depuis 2020 la mise en place de sociétés coopératives vocation commerciale conformes à l'acte uniforme de l'OADA. Au total, 29 sociétés coopératives ont été mises en place dans les différentes régions du Sénégal, 9 régions exactement. Elles ont été regroupées ensuite en 5 unions zonales dans les Niayes, la vallée du fleuve Sénégal, le Fouta, le centre du Sénégal, notamment les départements de Fatigue et de Foundiougne, et en Casamance naturelle. Mieux, pour consolider ces sociétés coopératives et leur donner les capacités nécessaires à l'exercice correct de leur mission, le PACAO Sénégal a initié et mis en œuvre plusieurs programmes d'accompagnement. J'en citerai entre autres le programme de renforcement des capacités managériales et organisationnelles qui a permis aux dirigeants d'être renforcés sur le leadership, la bonne gouvernance, et aussi a permis la mise en place d'outils de gestion, de management stratégique et opérationnel des sociétés coopératives. Il s'agit en particulier des plans stratégiques de développement, des business plans, donc des plans d'affaires, des manuels de procédures techniques, financières et comptables. Le programme de renforcement des capacités techniques a, quant à lui, travaillé à la promotion des bonnes pratiques agricoles et post-récolte pour une meilleure productivité des chaînes de valeur agricole et la qualité des produits, en particulier dans la mangue et la, euh, la chaîne de valeur oignon. Le programme de renforcement des capacités commerciales a cherché à développer l'accès des sociétés coopératives aux différents marchés agricoles, aussi bien au niveau national, sous-régional qu'à l'international. Plusieurs missions de prospection commerciale ont été euh, menées donc, au niveau national et à l'international appuyé par le PACA au Sénégal, notamment au Salon international de l'agriculture à Meknes, au Salon interafricain du commerce en Égypte, sans oublier les salons locaux, notamment la Foire internationale de l'agriculture et des ressources animales et le Salon international de l'agriculture au Sénégal. Les différentes formations sur les négociations commerciales et l'organisation de rencontres d'affaires et de visites auprès des opérateurs de marché ont permis aux sociétés coopératives productrices d'oignons et de mangue de disposer d'un répertoire de partenaires commerciaux bien identifiés. Enfin, la mise en place d'un fonds d'investissement et de subvention en partenariat avec la Banque agricole du Sénégal améliorera significativement l'accès des sociétés coopératives au financement pour le développement de leurs capacités productives et commerciales. Monsieur le secrétaire d'État, vous me permettrez, avant de terminer, de activité importante que PACAO a initié et mis en œuvre, toujours avec l'appui de l'Union européenne et du Centre international du commerce. Il s'agit de la cartographie des exploitations agricoles. Alors, cette cartographie consiste pour nous à caractériser chaque exploitation agricole de manière à ce que chaque membre soit connu, aussi bien au plan structurel et géographique et fonctionnel. Un tel travail permet de développer Euh, une plus grande visibilité sur leurs caractéristiques euh, fonctionnelles et structurelles des exploitations agricoles et par conséquent de cibler les actions à leur endroit dans la perspective de renforcement de leur performance et compétitivité. La cartographie constitue aussi un outil qui permet d'aller rapidement vers la digitalisation des exploitations agricoles et par conséquent de l'agriculture de notre pays de manière générale. En cela, elle est pour une meilleure planification des activités une crédibilisation des sociétés coopératives et de leurs membres vis-à-vis -vis des partenaires qui les connaissent mieux et par conséquent peuvent avoir plus de confiance pour collaborer en toute transparence avec elles. 6 juillet, le monde entier célèbre la Journée internationale des coopératives sur le thème Les coopératives construisent un avenir meilleur pour tous. Une thématique qui nous donne l'occasion de magnifier l'impact considérable des coopératives sur nos en raison de leur capacité à contribuer à toutes les dimensions du développement durable. Ça a été rappelé par le professeur Cissé. En effet, l'entreprise coopérative, de par ses valeurs d'entraide, d'équité, de solidarité et de responsabilité, peut renforcer l'inclusion des personnes marginalisées et contribuer au développement économique et social des individus, de leurs familles et également de leur communauté. Au Sénégal, l'ITC s'appuie sur le programme d'appui à la compétitivité de l'Afrique de l'Ouest, financé par l'Union européenne, dont nous réitérons nos remerciements encore une fois, programme qui a pour objectif de euh, favoriser l'émergence de sociétés coopératives à vocation agricole basées sur l'acte uniforme de l'OADA. Pour ma part, je suis heureuse de constater qu'avec l'assistance technique de l'ITC déployée auprès de 29 coopératives mises en place avec l'appui euh, du programme, nous avons euh, donc à offrir à de 15 000 petits producteurs un plateau de services techniques allant de la formation à l'accès au le euh, renforcement de la capacité euh, À ce propos, bien que des efforts importants euh, aient été fournis, l'action du Centre du commerce international et de ses partenaires mérite d'être consolidée, amplifiée. C'est pourquoi ici, euh, nous formulons le vœu que les sociétés coopératives puissent justement saisir toutes les opportunités de manière à relier la production Euh, des, des, plus vulnérables au marché domestique, mais également au nouveau marché africain qui est en train de se construire dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine et bien évidemment tenter également l'expérience sur les marchés euh, internationaux. Sur un autre, euh, sous un autre registre, je suis particulièrement honorée de procéder euh, aujourd'hui avec toutes les parties prenantes ici, euh, avec euh, son Excellence Monsieur le Ministre également, officiellement à la remise au gouvernement du Sénégal en ce jour spécial du dispositif administratif d'immatriculation dénommé IRSCOP. qui consacre, comme vous le savez, la formalisation et l'existence juridique de toute société coopérative au Sénégal. Donc, en plus de contribuer à l'amélioration de l'environnement des affaires au Sénégal, ce registre électronique représente un levier pour la promotion de l'entrepreneuriat coopératif et la professionnalisation des petits producteurs. Ce résultat euh, n'a pas pu atteindre sans le concours, l'appui technique du GIE Guindé 2000, que nous saluons ici dans une démarche de co-construction qui a travaillé en partenariat avec les services compétents du ministère de l'Agriculture, que nous saluons également ici. Cette plateforme, nous formulons le vœu qu'elle soit viable euh, de manière à ce qu'elle puisse être utilisée au maximum par euh, les bénéficiaires.